foofu laay jeexale sénégalais li mu bëgg mënul nekk nañu teey te gëm liggéey wax naa ko fi àjjuma bale maa ngi koy waxaat xam nga fan yi lu ma xewal waaw ku ñëw rek man de Chérif barki démb dama ñetti dañ fee ñëw ma xool ñu wax bàyyi leen ñu wax ba pare ma ne ko yow sama moromu doom nga yow yaa Ibo Maase ak Amina yow boo ma joxul kañ waruma laa jox ñàkk nga jom demal nga liggéey fan yii loolu laa xewal te moom lay continuer dañ bëgg facilité ba mu ëpp te li ci ëpp fen la man léegi booy fen bu dama lay wax dangay ngay fen dootuma fi ne di la maslaal léegi rek fekk naa benn lettre ci suuf te ki ko indi xale bu tuuti la maa ngi koy xaar ba mu ñëw dinaa ko wax musiba woo xam ne ba ba muy dee maamam la mu doon dundee ci Dakar ca guerre ba dinaa ko ko parce que genn ñàkk jom gi laa xamut ndaw lu dara dalul demal nga liggéey. man mi ngay ñëw di ma solicité je travaille damay liggéey mat la bàyyi wala ma mat la maam nga ñëw ruusoo sax ne ma dimbale ma ci sama location bon ba doo dem nga liggéey te li ci ëpp yëpp fenn rek koo ko ci jox mu doxaanee ji ko seen gel yee leen di ñaan portable ak ak yu demee noonu amuñu ko ñuy wër di tawaaf ngeen baal ba ñuy wër di tawaaf loolu rek la de. du dara dañuy fen dara du ci dëkk Sénégal dañ bëgg facilité tawaaf la da ngay ñëw ci man euh, dee deelu ma jox la 10 mille nga ñëw ci shérif dee deelu mu jox la 5 mille nga dem ci alaaji Malick Diop dee deelu comme moom euh, euh, waaraatekat la mu yëkkati 15 000 jox la bu demee ci tant yi yalwaanal la nga def ko salaire te seetlu leen ko ci dimbale weer wii bu bu weer wii di ñëw mu ñëwaat salaire la koy def te même problème la lay waxaat Aline sekk lan lank leen ja lank leen beneen bi ci des na ci Sénégal génn groupe ci kër dix personne nekk fa benn seule personne di travailler pour le dix personne c'est pas normal na Sénégal jóg ci boobu cadre boo ko waxee ñu naan solidarité loolooy solidarité loolu toroxal nit ki la na Sénégal jóg ci boobu cadre feek jóguñ ci réew mi du avancé benn nit di liggéey fukki nit jaaxaan mooy fay courant bi mooy fay ndox mi mooy joxe dépense yow caayin guddi caayin bëccëg rek nga fi nekkee ak ndoxaan mu du jeex te jigéen ñi ngeen baal ma ñu ñàkk fayda façon ñàkk fayda boo xam ne kiñ gën a bëgg mooy ki amul dara loolu man daf ma jaaxal kiñ gën a bëgg mooy ku yorut siit ñu di la financé nag ñoom ñoo lay financé de ñoo lay jëndal dàll ñoo lay jëndal tubéy ñoo lay xottil ñoo lay jox argent de poche léeg-léeg nga tëgg ko pes ba miir am na buñ ma ciy nettali fan la mu ne dafa romb xale bu jigéen bi xale bu góor bi di ko dóor mu ñëw ne ko booy doo ko bàyyi mu ne ko lu ciy sa yoon xale bu jigéen bi ne ko lu ciy sa yoon <laughs> badara àddina tukki na di aj Badara àddina tukki na Thierno Ndiaye àddina tukki na mu ne ko lu ci sa yoon dafa mel ni jigéen ñi tamit loolu lañ gën a bëgg ku yaru ku baax ku leen yërëm yi donte doonte loxoom jotut ginnaawam sax waaye lam mën mu ngi koy def yërëm leen kooku moom ngeen baal ma xaj lañ koy def duñ ko considérer duñ ko toppatoo seen yoon newul ci moom waaye ku bon soxor di saaga di dóor koo koy nit xale bu góor du ñaan xadis yonent bi laay wax de sallallahu alayhi wasallam yaddul ulya xayrun min yaddi sufle yonent bi sallallahu wasallam nee na loxo bi féetee ko di joxe moo gën bi féetee suuf di nangu problème dëgg kenn ñépp xam nañ ko te ku ko am dinañ xam ne am nga problème lu deme ni feebar lu demee ni ordonnance bu ne këtti ne jonn te léeg-léeg ñu indi la ordonnance boo xam ne préfabriqué la ci Mansour Gueye la ñuy dem mu dóoral leen benn ordinance ñu indi ko dat bi day tooy xepp fekk fen yu tooy xepp la yooyu yëpp am na mag sax moo war a ñaan waaye gone gone gu tuuti yow amoo vingt am vingt cinq ans vingt ans di ñaan sa dundu gi yëpp ñaan nga ko war bëgg a def man daf ma métti maa ngi leen di mettre en garde léegi xale bu fi ñëwati di ma ñaan dinaa la tëgg pes ba nga xam ne yàlla buur na du ma yem ci bañ laa jox dinaa la ngadd ba nga xam ne yàlla buur na ñàkk jom dem leen ngeen liggéey i'malu wa qul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa sa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun ku liggéey yàlla jox la mais Sénégal gëmuñu liggéey gëmuñu ko dem leen ngeen liggéeyi te bàyyi wax ji man mi koy wax nag yéen ñëpp xam ngeen ne maa leen ci jiitu kon man mi boo de li tax may wax li boo demee dañ naan moo moom lu muy liggéey man li may liggéey bu ngeen ko xamoon naaw <laughs> maa ngi ci njaayum oto maa ngi ci pharmacie maa ngi ci yeneen yoo xam ne sax duma ko wax fii ndax damay bañ ñu catuma ndax Sénégal dañoo mën a catu nit dañ maa catoo catu ba fi mu ne sax damaa wow ndax cat man nopp ma yend lu ma fanaana lu ma dem leen ngeen liggéey nit ku baax du xale bu ndaw du ñaan xale bu tuuti am vingt ans vingt cinq di ñaan pour lan pour lan xale bu tuuti même booy jàng sax waruloo ñaan am nga parent yu lay fayal bismillah amoo ko débrouiller nga fayal sa bopp ñaata yoon la fi nit débrouiller fayal boppam jàngam demal ci tefes gii napp ci jën yi demal ci port bi yennul ci saako yi génnal ci mbedd mi baleel duggal ci ruq yi laaj loo liggéey kurusta ñaan warooro sa liggéey te liggéey boo fi xeeb boo demee Europe def ko dëgg la dëgg ku fi xeeb liggéey liggéey boo fii xeeb boo nee cëpp Europe def ko sa nga xaj sax dinga ko def pour mën a tedd waaw lu tax boo nekkee Sénégal doon nangoo sang sanga xaj pour tedd luy sa yoon mbaam xuux sax ku la wone ko kaay sangal ma sangal mbaam xuux mi ndax am loo tedde ca risaala daggan na eh, dagg ci médd lekk ca risaala daggan na bu fekkee amoo loo lekk waaye bul yóbbu waxaa kada jamono day toll foo xam ne boo amul loo liggéey may nañ la sax usine sàngara nga dem liggéey ci tey seet feneen boo amee feneen nag donte usine sàngara bi moo ëpp salaire nga bàyyi ko fa te dem ca beneen bi nga am charia bu la mayee loolu kañ pour jox la occasion wu liggéey la mais sénégalais gëmut liggéey tappale la gëm ak taxawaalu tappale ak taxawaalu tappale ak taxawaalu yooyu yorut réew avancé lu réew jëmalut réew kanam encore une fois balaa ñuy ñaanal ñi